d'abord dañuy sant suñu borom julli ci rasulullah di dellu di euh, jaal dellu euh, jottali njaalu président de la république ak gouvernement bi nga xam ni moom la premier ministre amut Ba jiite di ñaan ñaanal di leen di ñaan ñu fi jóge suñu borom teer leen ci àjjana yu gën a kawe waaye aussi ñi nga xam ni dañuy am gaañ-gaañ ñu ñaan suñu borom yëkkati leen ci jàmm encore une fois di remercier euh, maanaam waa presse ñu fi teew yëpp di fàttali le 8 janvier à peu près am na une semaine ak démb le 17 janvier euh, juróom-benn fukk ak ñeent ci doomu sénégalais génn nañu àdduna ci accident yooyu am ñu ci gaañu mat nañu ëpp nañu tuuti fukk benn bi sàkkal la woon benn bi fële ci cyclo dans l' arrondissement donc de ñibbi lu fi mosul am la ci accident de la metti na metti na lool te bu accident amee ah, responsable dina am parce que gouvernement bi d'abord moo mooy assurer maanaam la sécurité des Sénégalais donc loolu nguur gi xam na ko bu baax a baax loolu moo tax monsieur le président de la république mu bu mbir mu amee mu sant premier ministre pour mu wootee conseil interministériel ci nu mu gën a gaaw parce que état dafa am obligation pour aar ay doomam aar ñu fi dëkk képp koo xam ne yaa ngi ci territoire bi maanaam état bi daf la war a aar premier ministre convoqué conseil interministériel ministre yi nga xam ni ñoo laal ci wàllum maanaam transport routier ñëpp teew wax nag ni ah accident yooyu am te mu bëri te mosu fee am ñu xam ni kat il faut que ñu taxaw pour mën a jël ay ndogal jël ndogal yoo xam ni comme accident kenn mënul teqlu koo accident parce que allah kulli alin accident na am waaye am na ndogal yoo xam bu ñu ko jëlee c'est pour que lu fii am ci accident mu mën a wàññeeku loolu moo tax gouvernement bi jël ay mesures yoo xam ni yoo xam ni ci saa si dañ ko war a dogal waaye am na yoo xam ne ci ay fan wala ay quelques semaines dañ koy dogal loolu nag bu muy am aussi ànd nañ ci waxtaan ak acteur yi woo nañ leen ci conseil interministériel bi ñuy jën nañ ci ay kàddu ñu wax nañ ci seen xel ñu wax nañ ci seen ay xalaat donc waxtaan boobu ba mu amee ci conseil interministériel bi ci ëllëg sa maanaam ci semaine ba sax le vendredi bi man mii woote naa réunion acteurs yi am na ñu ñëw ñu ci ëpp ñëw nañu waaye aussi am na ñoo xam ni ñëwuñu ñi ñëw ba ñu jëlee kàddu wax wax nañ seen ay mbëbët ci mesures yi nga xam ni 23 mesures mooy ñaar fukk mesures ak ñett yi nga xam ni état bi jël na ko mais surtout yi nga xam ni yoon nañu waroon jëkk appliqué mooy sur les six mesures waaye bañ ko defee ma waxtaan ak ñoom déglu leen. ci mesure bi nga xam ni dañuy dañuy def maanaam brigade mix pour gën a mën a saytu maanaam yoon wi man leen mesure boobu bu neex yàlla daañ ci waxtaan ak gouverneur yeeg préfet yeeg sous préfet yi ah comme ça ñu jël ko nu mu gënee yombe ak nu mu gën gënee baax pour mën a lef liggéeyam beneen mesure bu ci topp mooy ñaareel bi mooy ñu ni heure yi nga xam ni oto yi dañ koy daw parce que nee nañu oto yi yi nga xam ne ñooy transporter des personnes mooy camions yi bokkuñu ci mooy car transport yi dañuy daw maanaam euh, de vingt trois avant vingt trois la ñuy maanaam onze heures ci guddi du ñu daw ba cinq heures du matin amul benn oto boo xam ni bu yàpp maanaam personne walla askan bi di def transport public interurbain boo xam ni daañ la bàyyi nga daw donc dañ koy tere. loolu parce que gis nañu accident yu ëpp guddi la bi mujj bu nekk sàkkal bi accident mi ngi am entre cinq heures trente du matin ak cinq heures quarante du matin lëndëm na mais dañ ni oto yi moom à partir de cinq daañuy daw donc c'est pour mën a firndeel que ni accident yu ci ëpp guddi lay am donc mesure boobu yaakaar naa ne ak acteurs yi d'accord nañ ci te mu nekk loo xam ne population bi ci boppam ànd na ci bu ci topp ñetteel point bi nga xam ne wax nañ ko muy ñu ni mbirum porte bagage yi dañoon oto yi dootu benn dootul am porte bagage suñu su ngeen seetloo oto yi nga xam ne dañu am immatriculation bu bees amuñu porte bagage waaye oto yi jëkk yi am nañu port bagage mais comme dañoo dañ koy dindi ñu xam ne dafa nekk loo xam ne da xaw a diis pour ñu def ko ci saa si d'accord acteurs yi dañ koy dàq léegi at waaye dañuy wàññi wàññi nag nu ñuy chargé porte bagage bu jëkk di nga doon gis oto boo xam ni dana def un mètre ca kaw at porte bagage ñu yeeg sept places yi maanaam lu tonn genn wàll mètre la ñu def porte bagage da nga genn wàll mètre ñu la toll ab pare genn wàll ci porte bagage yeneen oto yi moo xam ni mini car la moo xam ni bus la ñu ni maanaam soixante-dix centimètres maanaam dana yokk dana ëpp tuuti genn wàllu mètre donc loolu ñu wax acteurs yi ñu d'accord ci ci ñeenteel poñ bi dañuy woon ci mesure yi oto bépp oto boo xam ni da ngay transporter maanaam euh, euh, mbooloo askan mi personne transport personne de public euh, transport public de personne da ngay ñëw dakaar pour def sa visite technique ñu xam ni xëy na loolu dana metti parce que Dakar dong moo fi am ban boo xam ni mën na maanaam machine lay utiliser pour def le contrôle technique di fàttali euh, car ba nga xam ne dafa accidenté ca sàkkal muy mini car bi mooy Njaga bi def na ñett yoon visité nii ci Dakar ñetteel yoon bi la jàll bu mu jëkkee ñëw dafa amoon problème équilibre ñu dàq ko ba mu dellu see mu am problème mu euh, maanaam suspension frein autant pour moi sus frein ay problème frein ñu dàq ko ñetteel yoon bi la ñëw passé normalement mu jàll yëpp am visite technique am loolu c'est pour firndeel di que ni euh, maanaam contrôle centre contrôle yi nga xam ni dañu am ban te Dakar dong moo ko am dafa nekk lu am solo ñu ni léegi comme oto pour ñu ñëw fii dana xaw jafe-jafe daañu xool nan la ñu mën a taxawee pour du yóbbu ay ban mobile au niveau des régions pour oto yëpp mën a def seen contrôle technique donc loolu ñu ngi xoot ñu ngi xool nu ñu koy tegee donc dana xaar tuuti Euh, bu ci mujj enfin avant dernier mooy cinquième point bi juróomeel point bi ñu ni oto yi buy def transport maanaam de personne ca mesure yi dañoo dix ans fukki at dañ ko may mu am exploité fukki at bi nga xam ni maanaam mooy amee mooy transporter marchandise ñu ni fukki at ak juróom ñu xool ni loolu nag xaw naa xat loolu parce que boo fi indee oto bu am huit ans war def ñaari at dong dix ans yi mat danay gàtt ci ñoom ñu d' accord que ni léegi oto maanaam transport de personnes dañ koy jox durée de vingt ans bu nekkee bees wala bu ñëw fi huit ans de façon durée d' vingt ans la depuis la première année de mise en circulation bu fekkee oto la boo xam ne marchandise la vingt cinq ans la parce que tey jii su ñu gisee oto yu bëri ñii ay trente cinq ans la ñu am ñi quarante cinq ans la ñu am donc ñu d' ni vingt ans la ak vingt cinq ans kooku décret la tey état bi jël na ko. ba pare te ñu ni aussi am na yoo xam ni comme dañ koy mettre en application décret jël na ko ba pare def nañ benn période dérogatoire ci ñu nekkoon ci maanaam ci fànn boobu ñu bàyyi nañ deux ans pour que ñu mën a conformer wu donc mu nekk lu am solo point bi mujj bi mooy le point six ñu ni ci âge conducteur parce que ku nekk di dawal oto soit euh, transport de marchandise la wala Euh, transport donc de euh, de de de voyageurs boo nekkee transport de voyageurs ah il faut nga am vingt cinq ans mais kooku code la du ma ko ci code bi changé wuñ ko dañ ko maintenir ci code bi la kii vingt cinq ans ñaar fukki at ak juróom pour ñi nga xam ñooy dool ñu amee véhicule de transport public de bu fekkee gros porteurs yi la ñaar fukki at ak ñett la donc vraiment ba ñu waxtaanee ba tombé d'accord ci lii yëpp yëgal leen ko. syndicat bu ñu wax CUSTR mi nga xam ni mooy le euh, cadre unitaire des syndicats de transport routier ñoom d'accord nañu du ñu dem grève ñoom demuñu grève demaatuñu grève au contraire dañuy dañuy ànd ak nguur gi pour que ñu jàppale ñu pour que mesures yi nga xam ni ñu ngi koy mettre en œuvre ñu seet nu ñu ko mën a def ci nu mu gën rafet ma leen ci sant bu baax ci position boobu nga xam ne am nañ ko mu nekk une position vraiment républicain ah am conscience que ni fi ñu toll ak li fi xew grève xaju fi te grève mënu fa nekk donc ñu wane taxawaay boobule wanewuñu seen intérêt bopp mais intérêt population la ñu wane lan mooy république lan mooy man sàmm ay bakkan ak aussi lan mooy aar ay citoyens donc CUSTRA ak ñu mu àndal ñëpp parce que am na ñeneen les acteurs portuaires aussi d' accord nañ ni ñu grève wuñu demul grève ak maanaam garage yu bëri kenn demul ci grève parce que jamono ji fi mu toll ay affaire grève warute fi am donc ma leen sant bu baax di leen gërëm di wax nag grève aussi dafa am yoon parce que kuy grève da ngay def préavis boo joxul bi amoo droit ni da ngay dem grève donc di wax nag ni ñun état bi gouvernement bi man en tant que ministre en charge du secteur ah ubbi nañ suñ mën pour waxtaan ubbi nañ suñ mën pour waxtaan parce que loo gis ay waxtaan la loo gis maanaam ay saafante la sottante xalaat waaye nag di wax ni état bi nag dafa am taxawaay dafa am loo xam état dana ko nangu ak loo xam ni état du ko nangu état dana taxaw maanaam lu mu ko war a def ci ay responsabilité mu def ko ku bëgg liggéey nga dem liggéey ku bëgg a grève bu la neexee nga grève waaye ku ci jóg ni damay yàq wala damay def la état bi dana dal sa kaw loolu moom dafa nekkoon loo xam ni il faut ma wax ko leeral ko les forces de sécurité et de défense daa jël suñu mesure yëpp ba nga xam ne képp koo xam ne nan nga gàllankoor circulation bi yoon dana dal sa kaw te buy dal sa kaw moom yoon buy dal sa kaw day dal ci kaw rek donc loolu daal laa xamoon bëggoon ko wax nag di woote ñëpp ci waxtaan buntu ministère bi ubbeeku na pour waxtaan buntu premier ministre ubbeeku na pour waxtaan buntu président de la république ubbeeku na pour ñu waxtaan nañ ko jaaral ci yoon te man taxaw naa ak samay collaborateur pour que lépp loo xam ni pour yombalal la waxtaan bi pour que secteur bi jëm kanam parce que dañoo war a jublu ci defaraat secteur bi dañoo war a jublu pour defaat le renouvellement programme renouvellement dafa nekk loo xam ne priorité la ci Sénégal mooy renouvellement yi nga xam ne mu def interurbain mooy oto yi dem daw diggante dëkk dëkk te ek eh, état bi dana def kentaay katam def ci ay koppar pour que renouvellement boobu mu mun gën a tàmbali te mu gën a gaaw donc euh, encore une fois loolu laa amoon loo xam ne doon ko bu baax. di sant maanaam jour taskatu xibaar yi seen teewaay